laylatul mawlidi lasi kana lidi ne sororon bi yawmihi wazdiha salli ya rabbana wa sallim ala ma للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة وضحاه laylatul mawlidi lasi kaana lidi ne sororun bi yawmi he wadiha o salli ya rabbana wa salli ala ma huwa lil khalqi rahmatu wa tawalat buzral hawati bi anqar wulid al mustafa wa hakal hana tey ñu ngi fii ci Kaolack Euh, ànd ak équipe technique bu ministère hydraulique ak assainissement yëpp directeur yëpp euh, ñëw ànd ak man ñu fekk si fi fii autorité euh, administrative yi gouverneur préfet ak ñi ñu àndal mais aussi le maire de Kaolack tey ki ko représenté fii di soxna ma jigéen mais également saa yu ma ñëwee Kaolack communauté bi association yi ak citoyens yi génn ñi nga xam ne ñoo leen di représenté ànd ñun gunge ñu ci visite yi di ñu indil seen xalaat ak seen contribution donc loolu la ñu ñëw teef tey pour saytu li nga xam ne teg nañ ko ci mag euh, gàmmu gii ñu jëm muy événement bu rëyee a rëy ndax ku xam Kaolack xam ni gàmmu gi lu fi am solo la ndax du rek ay sénégalais fii ñëw waaye sous région bi euh, ci Afrique mu di Ghana mu di Nigéria ba fu ko gën a sore ñoom ñëpp dañu jël ay avion ñëw fii ci Kaolack ñooñu nag dañu bëgg bu ñu ñëwee euh, fekk fii loo xam ne lii dina leen noppal ñu mën a gàmm seen gàmmu ci jàmm mën a def seen ziar ak seen i ñaan moo tax ci wàllu ndox mi la ñu commencé ndox mi ñëpp xam nañu ni léeg-léeg mu am ay jafe-jafe ndoxu Kaolack waaye loolu incha allah programme yi ñu ci am buñ ko tëralee buñ ci yeggee dana régler loolu waaye fii jàmp nga xam ne ñu ngi jëm ci ci gàmmu gi dañu ñëw xool si wàllu forage yi am na forage mu mag boo xam ne mooy jox Kaolack euh, fii dina Baye ndox muy forage F4 dañu fekk mu am ay jafe-jafe fan yi yëpp ndax euh, tuyaux yi dañuy yàgg yàggaay boo xam ne dafa demoon ba bënn loolu mooy situation yi ñu fi fekk ba ndoxu xorom mi di si dugg ba nit ñi mën ñu koo jëfandikoo ba ma waxtaanee ak euh, techniciens yi foofu ñu taxaw ci biir forage bi laa leen di laaj na leen ci ñetti fan bu mu ko génn nañu ci trouver solution ba incha allah dès aujourd'hui commencé nañu liggéey et fii rek ñetti fan forage boobu dina mën a dugaat ci réseau bi pour que gàmmu gi mën a am euh, nit ñi am jàmm. mais en attendant sax ñu koy defar dama war leen wax ni yeneen forage yi nekk ci Kaolack ñu jël leen connecté leen fii ci Medina ñooñu ñuy jox ndox euh, dëkk bi en ñuy defar boobu forage. waaye biir gàmmu gi itam xam ngeen ni lu ndox bare bare nit nit ñi dañu bari am na point yoo xam ne dana am jafe-jafe moo tax génnee nañu ay camion citerne yoo xam ne dina ëpp fanweeri camion citerne yuy wër ci biir dëkk bi di duy ndox di ko yóbbul nit ñi ci seen biiri kër dinañu seet aussi sites yi nga xam ne nit ñi fa la ñuy dal te bari ñu leen di yóbbul ndox ba foofu ñu nekk duñu ñu di génn mais bu amoon baisse de pression sax ñu indi leen ndox ak ci biir quartier yi ñu def ay points yoo xam ne itam dana am ndox ñu ko siy mën a jot wàllu assainissement itam noonu lañ ko defee service yi ONAS ñëw nañu direction de la prévention des inondations ñëw na ànd ak mairie bi ñu xool fépp foo xamoon ni am na ay jafe-jafe ndox doon fa taa ñu prévoir ay amion camion hydrocureur yoo xam ni dinañ ko pomper kon xam ngeen ni nawet bi jeexagul ndax fii ñu toll taw yi dina continuer mën na am mu taw sax aussitôt avant gàmmu gi wala bisu gàmmu waaye def nañu dispositif boo xam ni fépp fu ndox di taa sapeur pompier ak ñu ñu ñëw pomper ko ak fépp foo xam ne nii pompage amu fa itam ñu ñëw man ko ko ak camion yi daal di koy yóbbu donc loolu mooy li nga xam ni tëral nañu ko te di ñaan yàlla yàlla di yóbbu ñu ci gàmmu gi ak jàmm nawet bi ba fii ñuy waxee alhamdulilah bi ma njëkkee ñëw Kaolack dama leen ni woon ñun bi ñu yegsee nawet bi kenn mënu fi woon def loo xam ne mooy solution définitive solution d'urgence la ñu waroon mën a def nit ñi déggoon nañ ñu bu baax ci suñu message de vérité boobu ñu teniroon ànd nañ ci ak ñun gunge ñu ci même communauté yi jeunes yi bi ñu laajee ay moto euh, pompe ak ay électropompe jox nañu leen ko ngir ñoom ñu ñëw pompeel ñu biir kër yi nga xam ne ndox taaw taawoon nafa ma leen di ñaan ñu continuer loolu collaboration bi entre la mairie ak service su état bi sous l' encadrement du gouverneur et du préfet pour que ñu mën a continuer loolu ba ñu def gàmmu gi ci jàmm. incha allah bu jeexee nag bu soobee yàlla président de la république euh, soññ nañu. ci ñu baral projet yu mag yi nga xam ne am na ko pour Sénégal ci wàllu ndox ak assainissement moo tax samay équipe technique bis bu nekk dama leen naan bu leen déglu bu leen xalaat bu leen def leneen lu dul concentré wu ci projet yi parce que loolu mooy li am solo leneen lépp amul solo li am solo mooy mission bi ñu président jox ne ñu nañ ko liggéey te nañ ko liggéey ci ni mu gën a gaawee loolu moo tax ñu ñëw fii sàkku si ñaan ndax xam nañu ni bu si sëriñ bi ñaanee incha allah yàlla dinañu yombalal yen bi bi diis waaye bu ñu ci amee financement techniciens yi am nañu xarañte ñëw. li ciy des mooy ñaanal ñu yàlla te sëriñ bi ñaanal nañu comme yenn sëriñ yi nu ñu ñaanalee ñaanal président ñaanal premier ministre ñaanal gouvernement te yaakaar naa ne bu boobaa bu ñu amee ndimbalu peuple sénégalais bi rek te am nañ ko ba noppi incha allah danañu réussir suñu mission bu soobee yàlla laylatul mawlidi la si kaana li di ne sororoon bi yaw mi he wasdiha salli ya rabbana wa sallim ala ma هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة ليلة كل مولد الذي كان لدي نسرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وضحاه وتوالى البزر الهواتف أنقاد ولد المصطفى وهاك الهناء